Cheikh Hadjibou Soumaré turu premier ministre bi fi woon la moom mile jotoon na bind ab lettre jagleel ko njiitu réew mi le bataaxal bu mu sampoon ay laajam mu bokkoon ci laaj yooyu le ne ko ndax yow njiitu réew mi dangaa jot a jël lu toll ci juróom-ñaari milliards jàpp juróom-ñetti milliards suñuy koppar ñun waa senegal jëbbal ko Marine Le Pen mi fi ñëwoon doon amal ak ngan ci yow coow loolu le amoon fii ci senegal ci weeru mars gi ñu génn ci atum 2023 xawoon na Cheikh Hadjibou Soumaré ñu yóbbu woon ko foofule ca euh, brigade Sankhal police bu Sankhal bu nekk ci Ndakaaru Njaay foofee la ñu ko doon dégloo ba jotoon ko defal garde à vue mujj ko ñu defal ko sous contrôle judiciaire moom mi di Cheikh Hadjibou Soumaré nag am na leneen lu yees ci mbiram yooyu lee ndax ëllëg ci àllarba ji bu ñu sukkandikoo ci source yu leerte woo wóor dañu ko wooluwaat foofee nga xam ne moom moo di ca boobu lépp barab di ko def di juge d'instruction bile ngir fas yéene koo dégluwaat lu jëm ci enquête boo xam ne dafa yitteel coow loolu nga xam ne jotoon na fee sulleeku diggam coowal juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti million ñetti milliards yi nga xam ne doon na wax ni président jot na ko jébbal Marine Le Pen mi fi ñëwoon doon amal ak ngan ak moom mi di président Macky Sall li ci mën a xew itam danañ toppaat la cay di ci ay xibaar ak la ca ñu baaxee leen ko fii ci Public SN TV Public SN di leen gërëm bu baax a baax ci seen topp ak ànd gi ak ñun